dem leen Gezuallah. Oui. Gis nga de. mu ngi nii de. non extincteur yi dañoo war ko war a yokk ko tey. lii APR boo xam ne mënoo secourir kenn diggante fii ak fii. non même pas cent mètres. dina mën a dime. non ñun bi ñuy taxaw bi ñu wàccee suñu extincteur su ngeen ñëwoon mën nañoo dem. dama xëjal kii bi ah. kii. Euh, peinture yi.

mission équipement seen équipement la ñu. alhamdulilah. non non. Pambu sama ngeen mu ni kaay xool da ay yàlla la la ka bu tawal ka bu tawal eh adam la mu la ka ga nda ko fay xewal xewal ko ki da ngeen la la